له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مبكي سنغال مبكي جسبورا بي نيغي اندك يين تي وقتانو خمسه دين تي مالكيه تي في ليرو مودو دي نيان يالا توفيق yal nañ yàlla defal tawfiq yal nañ yàlla defal tawfiq mbokk yi jàmbaar amul ku yàlla dimbale moo am waaye nag nañ ca boole góor góorlu ba yàlla xam ne dogu nañu am nañu pas-pas lu ñu mànkile kon danañu ko mottalil ñi ngi yemoon ak yow ci bàkkaar yu mag yi gannaaw ba ñu tuddee bokkaale ak li nekk ci bokkaale ci ay daan yu yàlla di dencal jaam bi ëllëg yàlla nañ ci yàlla boole musal yàlla nee na bakkaar yépp mën naa ko jéggale ba mu des bokkaale bi mu paree ñu waxtaanoon ci faat bakkan ak ni mu xewee ci jamono ak ni ko nit ñi defee comme ndox mu ñuy naan loolu yépp waxtaane woon nañ ko ci audio ci émission yi nga xam ne fa tabarakallahu moo paase waxtaane woon nañu itam bàkkaaru ñàkk julli waxtu ci koo xam ne amuloo benn ngant walla koo xam ne doo dem jàkk ji di julli ji te fekk amuloo benn ngant li ci nekk itam ci bàkkaar waxtaane woon nañ ko waxtaane nañu itam bàkkaaru ñàkk génne azaka koo xam ne yàlla mën na ko gan mu am lu mu war a génne te quantité bu tuuti la yàlla moom dafa yërëm jaam ñi ndax xam na ne sa alal yaa ko ñaq yaa ko sonne ba jot ko waaye am na ci pourcentage boo xam ne moomuloo ko dafa bëgg nga génne ko jox ko jaamu yàlla yi amul sadaqatun tuxadu min amwali agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim alal la joo xam ne dañ koy jël ci poche ñi am teg ko ci loxo ñi nga xam ne bii dañoo néew doole seen loxo jotu seen gannaaw muy solidarité islamique boo xam ne bu doxoon ni mu war a doxe crise bii am ci àdduna bi am fii ci senegal nit ñi di deeg xiif di deeg mar lu ci bare bari dana wàññeeku ndax ñun ñoo jàppalantewul ni ñu war a jàppalante tey nag maa ngi dugg ak yow ci beneen kabira min al benen bakkar bo xamne ci bakkar yu magi la bok te mbok yi waxon na len ne leen bàkkaar benn jaru ci xeb fer ñent dang koy xeb mu lak sa dag waxantuma lak nak lu ñuy tudde ak bakkar yu magi yi yajtanibuna kabaira al ithmi wal fawahisha illa lamam yal nañ yàlla defal tawfiq tay ma ngi tollu ak yow ci bakkaru ko xamne ki wéru koor dafa ñëw يلا جوخي ندغل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يين نيغا خامني يينا واخني گم گين فراتال نانتي يين كور ني نيكو فراتالي وون تي خيت ييغا خامني نيو لين في جيتو وون صلى الله عليه وسلم وخاتني buniyal islaamu ala xams l'islaam juróomi pilier moo ko téye bi ci njëkk moo di shahaadatu an laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah nga sédé bu wér ne yàlla kenn la moom rekk lañ war jaamu seede itam ne sayyiduna muhammad yàlla ko yónni wa iqaamatu salaati nga taxawal julli wa itaau zakaati nga nangoo génne azaka وحج البيت اك نانغو اجي مكه وصوم رمضان اك وور ويرو كور كون وور ويرو كور مبوكي دافا بوك سي بونكي الاسلام كون كو خامن كي داغا تي دوك بن بيس ويرو كور نيونا نيت نياغي وور يا وورلو تابلو بن غانت فيبرلو توكي ولو دارا جوتولا داغا توب سا بانيخو بكان رك لانك باغا وور ولا nga wor ba ci biir nga xey dok te amuloo benn ngant kooku mbokk yi bàkkaar la minal kabairi kabiratun minal kabairi bakkar bu mag la bu mbokk ci bàkkaar yu mag yi moo sallallahu alayhi wa sallam nee na man aftara yowman min ramadan bila udrin koo xam ne da ngaa dog benn bis ci bëccëgu weeru koor te fekk amuloo benn ngant lam yaqdihi siyaamu dahri wa insaamahu bo woron jamono yep pour bëgg ko fay itam du tax nga fay ko kon mbokk yi yalla nañ yàlla musal ci xeeti bakkar yi ndekete yo ñak wor woor koor ta amulo ben ngant wala nga dok ci ben fan ta amulo ben ngant tukki wolo jigen bu de jigen indisposé wul de nga dara jotuko nga xey xey rek dok ta amulo ben ngant sang bi neena so woron jamono yep bëgg a fay bis boobu doo ko fay kon yàlla nañ yàlla defal tawfiq sallallahu alayhi wa sallam nee na jële nañ ci ibnu abbas radiallahu anhuma mu ne ura al islaami wa qawaidu diini thalath buum yi nga xam ne bii moo téye lislaam moo ko takkee nee na ñett la bi ci njëkk moo di nga seede ne yàlla kenn la nangoo julli nangoo woor weeru koor fa man taraka waxidatan minhunna fa huwa kaafirun ku ci bàyyi benn nee na génn nga ci diina lislaam naudu billahi min dalik ñu ngi ñaan yàlla yàlla boole musal ñu ci loolu bi ci tegu moo di alkabiratu saabiatu moom itam bàkkaar la bu bokk ci bàkkaar yu mag yi grand péché yi dañuy tudde les péchés majeurs nga xam ne bokkul ak bàkkaar yu ndaw yi bàkkaar yu mag yi laa wax de nga xam ne sang bi nee na na ko moytu ni ko ndax dafay alak nit bu juróom-ñaareel bi moo di koo xam yàlla baaxe na la may la alal may la wér gu yaram amuloo benn ngàtt te nanguwuloo aji mag te yàlla moo wax ci alquran ne walillahi ala nnaasi xijjul bayti aw xajjul bayti man istataa ilayhi sabila ci suratu ali imran verset 97 koo yàlla mo faratal ci nit ñi ñu aji màkk ci képp koo xam ne ki man nga ko sabil am na wérgu yaram am na yóbbal am na lu la war a yóbbu am na amuloo benn ngant ki am ngant nag am na ngant waaye ki amul ngant moo ñu tax di wax ñàkk aji màkk dund ci loolu ba génn àdduna na ko wóor ne def na kabiratu min al kabair yàlla incha boole musal moo tax sallallahu alayhi wa sallam man malaka zaadan wa raaxilahu koo xam ne kii am nga yóbbal am nga waruwaay bu la yóbbu nee na yóbbu man malaka zaadan wa raaxilatan am nga yóbbal am nga waruwaay boo xam ne tuballighuhu xajja baytillahi alxaram mën na laa jële fii yóbbu la ba makk avion yaa ngi fi bato yaa ngi fi leneen a ngi fi am na ñoo xam ne réew réew ya ñu am oto sax mën na leen a yóbbu walam yaxujja nee na te nanguwula aj makka فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا نينا بوي دي نديك أك يهود ولا موديك ديني نصران بوكي يالن شال بول مسل داخ نينا لتخ موي يالا دفا وخنا أج مكة فرطلا نيل كيب كو خمني أمغا كاتن أمغا لولو يوب أمغا ويرغو يرم تعملو بيانا كالنكور سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نينا دمنا بي واج يوني اي نداو ني ديم سي دك يي سيد كيب كو خامني كي امنا جت اي قدره من صحه ومال موم دا فا امون ايت دا فا دا فارلو وون دا دون گستو دي خول نينا جارال نا ما جيل اي نيت يوني لين سي دك يي ني خول نيغا خامني امنا ني علال امنا ني ويرغو يارام امنا ني كاتان سي ادي مكه su ko defee bu ma demee ma jàpp ne ñii duñu ay jullit na may laaje jizya ñu nekk ci yeneen diine te nekk ci kaarangay lislaam lislaam di leen protéger ba tax ñuy génnee jizya nee na ñooña wax ne ay jullit lañu te nanguwuñoo génnee nanguwuñoo aji màkka te am nañu wér gu yaram am nañu kattan am nañu alal duma leen considérer ay jullit dama leen di jàppe ay non musulman ma farataal ci seen kaw jizya sayiduna abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma nee na amul kenn koo xam ne kii mën ngaa aji te ajiwuloo wala nga yore alal war caa génne asaka génnewuloo ko lu dul boo demee ba génn àdduna danga laaj sa borom ne yàlla tee nga ma may ma delluwaat àdduna فقيل له ني نيان اك دلو ньо ньо اي ييفير لا نيو يالا وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون يالا نينا wërsëg yu ma leen jox na ngeen ci dépensé lu jiitu dee di ñëw ku ci nekk naan yàlla teewoo nga ma may beneen délai bu ko defee fa as sadaqa moom mi ngi ko firee ay fa u addiye zakata ma génnee azaka wa akun min as-saalihiina mi ngi ko firee ma aji néegu yàlla bi te yàlla nee na walan yu axira allahu nafsan ida jaa ajaluha wallahu xabirum bi ma taamaluuna bakkan boo xam ne bii waxtoom jot na àppam jot na jéego yi nga waroon a jéego jéego nga ko ci àdduna ba noppi nee na la ca des rek mooy dee kenn mënu ci dara ma wa ida almaniyatu anshabat adfaaraha alfay alfayta kulla tamimatin la tanfau nee na bu dee xasee ba ñëw gàllaaj ak saafaraak aspirine ak asporook perfusion machine bi lu mu met met docteur bi lu mu aay aay professeur bi lu mu aay aay sëriñ bi lu mu mën a ñaan ñaan déggu xasee ba ñëw mbokk yi tabarakallahu kenn mënu koo delloo ko dul yàlla kon asaka waxoon nañ ko ci audio bi nga xamante ne bii wala boog ci émission yi nga xam ne moo passé woon mi ngi war ci mi atay dirhamin ak lépp lu tolloog moom bu dee aj nag li koy waral moo di ki am azat am arrahila na am yóbbal ba noppi am wér gu yaram ba noppi am lu ko yóbbu sayduna saïd ibnu jubayr radiallahu anhu nekkoon nit ku baax nit ku sell bokk min attaabiina nee na maata lii jaarun muusirun lam yaxujja fa lam usalli alayhi dama amoon dëkkandoo boo xam ne yàlla mayoon na ko wërsëg yàlla baaxe woon na ko may na ko alal waaye seetlu naa ne nanguwul woon a dem joxe faratay mag faratay aji mag bi mu génnee àdduna ma ne man du ma ko jullee ndax jàppewuma ko muy jullit kon mbokk yi yàlla yàlla defal tawfiq maa ngi dugg ci beneen kabira min al kabairi beneen bàkkaar bu mag ci bàkkaar yu mag yi bii mbokk yi bu jar a bàyyi xel la ndax dañoo toll ci jamono boo xam ne daanaka way jur amatu ci gëdd da ngay jur sa doom sonn ci rawatina yaay ëmb imbi juróom-ñeenti weer nga nekk ko ci sa biiru yaay di toxu ci ay étape ba ngay nekk toqantalu maniyu ci sa ndiggal bàyyi yàlla di doxal sëy di am dencante am ci diggante ñaar ñu góor ñu booloo yàlla nee na ma jël ñaari ndox ya sos ci doom fal yandur il insaanu mimma xuliq xuliqa mimma in daafiq yaxruju min bayni sulbi wa taraib wa laqad xalaqna al insana min sulalatin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء laa ilaha illa huwa al azizul hakim étape par étape nga nekk ndox toq mën yu dama dem ba jógee fa nekk lumbu deret dama dem ba jógee fa nekk aw suux ba yàlla di roof yax si di caas ba nga nekk nit ci sa biiru ndey bis jot ndaw si mucc génn coono bi mu àndal bi mu la ëmbee ak imbi rek ni mu metti bu ci jigen tollo li yek ci métit sage femme yi taxaw serigne ci taxaw ñi ngi ñaan ñi ngi koy assister ba nga genn te bakkanam xajon na ci motax ñu ne ndaw ci muccu na nampal ni mu metti dama dem ba nga fer commencé dox di jappandu commencé ram jeki jeki di japp ci miri dama dama dema dem ba tanki yi deugar a ngay dox di daanu dama dama dem ba tànk yi dëgër nga mën a dox te kenn du la téye nga dama dem ba nekk ponkal moo xam ne fa tabarakallahu war ngaa mën a yenu téeméeri kilo te du la wàññi dara war ngaa mën a dox fukki kilomètre te du la nga wan sa ndey ak sa baay gannaaw di leen ñàkke teggin di leen ñàkke worma lu ñu la sant nga bañ fu la neex dem te doo leen tàggu doo nekk ci seen ndigal mbokk yi loolu ëpp naa def dafa bokk ci bàkkaar yu mag yi loolu lañuy ñuy tudde uququl walidayn dënge sa ñaari way jur waaw dënge sa ñaari way jur nga def ko ba noppi bëgg a tekki nga def ko ba noppi bëgg a mel ne ñi ko defuloo ko maanaam respecté woo leen ba noppi bëgg a tekki bëgg a sekki comme ni ko ñi ko def defe am lañu am agg fa ñu àgg xam lañu xam mbokk yi yombul yàlla ngi wax ci alquran ne bismillahi irrahmani wa qada rabbuka an ta'budu illa iyahu wa bilwalidayni ihsaana yow doomu adama waral naa ci yow li atte ci yow dogal ko ci yow waral ko ci yow moo di ngeen ànd yéen ñépp bañ jaamu kenn kenn ku dul yàlla waaw baatu laa ilaha illa allah loolu lay tekki baatu laa ilaha illallah baat la boo xam ne boo ko waxee dangaa dàq ne laa maabuda bi xaqin amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ci kaw suuf moo xam nit la wala muy jant wala muy weer wala muy daraja wala muy mbooloo wala muy alal nga war koo jaamu ci dëgg ku dul suñu borom subhanahu wa taala baatu laa ilaha illa allah kalima bu doy waar la kalimatun tatadammanu an nafiya والإثبات في وقت واحد waahidin da ngay dàq da ngay bale ba mu set wicc nga door saxal ne du kenn kenn ku ñu war a jaamu illa allah subhanahu wa taba subhanahu tabaraka wa taala moom rek lañ war a jaamu boo jaamoo yàlla ba noppi jox ko li nga ko war a jox saxal ay meloom yàlla nee na sopp sallallahu alayhi wa sallam loolu itam lu am solo la waaw ndey ak bàyyi li ñuy rëy rëy sallallahu alayhi wa sallam moo leen ëpp cër ci yow sa jëmm ji li muy rëy rëy sallallahu alayhi wa sallam moo la ëpp cër ci sa jëmm ji annabiyu awla bil muminina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum bu sallallahu alayhi wa sallam jàllee soo amee kenn koo cay teg mbokk yi moo dina nga rafetal jëme ci sa ñaari wayjur wa bil walidayni ihsana waabudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana na nga rafetal jëme ci sa ñaari wayjur nga am ci ñoom ñeewant am ci ñoom yërmande imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma bu la yàlla baaxee nga dund ak sa yaay wala sa pap ñu dema dem ba nekk mag mënatuñu boo dee wax duñu dégg boo dee xool du ñu gis bu ñu jóg dañ leen di yëkkati bu ñuy lekk dañ leen di xool fa tabarakallahu nee na bu boobaa nag toll foofu nag yow nga toll ci sa digg ndaw toll ci sa digg doole bul taxaw di jàkkaarloo kenn naan uf paa bi dafa lakkale maire bi dafa lakkale ken xamul lu mu bëgg dafa naqari deret mbokk yi dom ju ko def na la wóor ne naruloo tekki yaa ngi dënge sa ñaari wayjur te ko ko def yaangi def bàkkaar bu bokk min al kabaa'iri wala tanharhuma yàlla neena bu len geud ay la taqul lahuma bi tabarrum bu deme ida asanna bu ñu deme ba nek mak nga xamne fu jott dañ leena wara war magu Sénégal dafa metti boo laajee yére yu set bëgg a sangu ñu ne dangaa bëgg àdduna boo laajee lekk gu neex ñu ne bëgg àdduna boo laajee parfum ñu ne da mag sama benn wayjur bu baax al ustaad alxaaji xalifa kebe radi xafidahullah waraa mooy faral di wax ne mag dara nekk ci mag mu ñu toppatoowul rek moo bon mag dañ koy toppatoo mag dañ koy yërëm toog di waxtaan ak moom ndax ba nga ca tolloo di jooy mëno dara ñu lay yëkëti mo la doon yëkëti di la boot di la fab kon moom itam bu demee ba tollu ci nag da nga ko war a fay bor bi moo tax yàlla ne ida imma yablughanna ahaduhuma imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma bu leen ñàkke teggin bu leen wax uf bu leen wax mbass bu leen gëdd mukk wa yanbaghi an tatawalla xidmatahuma ma tawallaya min xidmatika lañ la doon lebal ba nga nekkee xale mënaloo sa bopp dara ñoo lay boot dégg nga boo tuuree ndox wala nga gaanuwaay ñoo lay defal couche yi ñi nga ciy sonn ñoo lay sang boo feebaree ñi ngi ci sa wet lu la matt ñu jóg yanu ña nga hôpital ña ngay tëdd ca perong ya fa tabarakallahu bor boobu ñu la lebaloon nag boo demee ba nekk mag nag danga leen koo war a fay ala anna al fadla lil mutaqaddimi wa kay kayfa yaqau tasawi te nag ngëneel dëgg-dëgg ki ko moom mooy ki nga xam ne moo mooy ki jiitu yow ma noo yem ak moom waxuma la dara waaye ëmb rek ni mu mettee juróom-ñeenti weer nga nekk ko ci sa biiru yaay muy guus guusi tension di wàcc mi ngi jafte te terewu koo liggéey ma ngay dëbb ma ngay yett ma ngay rooti ca teen ya fa tabarakallahu mi ngi togg dara manqué wul mi ngi fóot nekk ci ndigalal way jur wi ci kër gi di boroom këram mbokk yi kooku ku ko sa jur defal bu demee ba nekk mag na nga war koo fay te loo ko mën a fay xanaa da ngay jéem waaye bor boo xam ne loo am def ci waaye kenn mënu ko fay ba mu jeex ñoo la daan fab waqat laa ni adaka aw yataxamalaani adaka ñi ngi doon yanu di supporter say lor ak say benki ñenki yaa ngi gànnuwaay ci seen kaw yaa ngi tuur ñam ci seen kaw yaa ngi wàccu ci seen kaw yaa ngi leen di matt yaa ngi leen di xusi yaa ngi leen di gëjj ñoom ñu ngi ko doon def taxamul di ko supporter waaw raajiina xayaataka la lañu doon ñaan di ko mebet mooy sama doom ji yàlla na dund ba tekki yàlla na dund ba am liggéey yàlla na dund ba am nekk imam yàlla na dund ba nekk sëriñ daara yàlla na dund ba tekki ci réew mi am ndombal tànk waaw ku ci nekk boo sañoon sa njaboota lay gën wallahi suñu way jur yi li ñu daj ci ñun mbokk yi mënuñu leen koo fay bala nga koy xam nag nga dem ba màgg ba am doom fa tabarakallahu boo demee ba am doom xam li ci nekk ci métit ci wàllu yar wàllu yore wàllu jàng wàllu defar wàllu éducation wàllu orienté bugguloo mu nekk ci lu bon boo sañoon sa doom du laal cigarette du tux du fekkee fu ñuy tuxe cigarette boo gisee ku jox sa doom xaalis di ko jëndaloo cigarette sax dangay ngay mer da ngay xuloo ak moom soo amee njaboot gu jigéen yaa ngi leen di surveiller bëgguloo ñu dox tànki caaxaan bëgguloo ñu ànd ak xale bu góor boo xam ne caaxaan rek moo ko tax a jóg bëgguloo ñuy fréquenté place yoo xam ne bii ña fa nekk jubuñu bëgguloo ñu col col gu bon coono boobu nga nekke ànd ak sa njaboot di leen yéene jàmm di ànd ak ñoom ñu dema dema dem ba màgg bëgg laa wan ginnaaw nekk ci lu bon mbokk yi doom ju ko def delloowuloo naar ba xorom waaw delloowuloo naar ba mbàttuma ni ko la fii wax wa anta in xamalta adahuma rajawta mawtahuma ñoom bi ñuy yanu sa coono ak sa lor dañu doon ñaan yow nga dund te jamono léegi bi am na fu mag di toll njaboot gi dañu naan mère bi ak paa bi na fi jóge ndax ñu noppalu am na ñoo xam ne boo wutul sax mën nañ laa jox ay doom pour ngay nelaw am na ñoo xam ne mën nañoo yëkkati poisson jox la ko pour nga génn àdduna am na ñoo xam ne ña ngay seet la nga denc sa compte lan moo fa nekk say kër ñaata la ndax am nga loo yore ci xaalis am nga loo yore ci wurus fàtte nañu ne kii nit la jur la woo xam ne dafa dund sonn ba àgg fii mu àgg yow mii def loolu paa bi mën naa nekk mag de mais soo amul chance dëgg-dëgg paa bi mën na laa suul bàyyi la fi kon mbokk yi nañu bàyyi xel jur yi waaw uququl walidayni kabiratun min al kabairi dëng ñaari wayjur bàkkaar la bu bokk ci bàkkaar yu mag yi yàlla nee na وقل لهما قولا كريما سوي واخك نيوم سا واخنا تيد سا واخنا نوي سا واخنا يو سا واخنا اندك كرسا سا واخنا اندك حرمه اي لينا لطيفا واخ جو نوي واخ جو يم واخ جو دال واخ جو تي واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بوكي يالا مو خم القران مو تد القران مو نيخ القران مو يو alquran moo mën a yar nit da ngay gis koo xam ne yàlla daf koy mën a takkal ko ndoom ba tànk bu ñëwee ci kër gi yàlla bu papa ji nekk nag ci àll ba tabarakallahu ay dàllam lay dugge ci biir néeg bi toog ci kaw lal bi papa ji toog ci suuf mën naa am kër gu baax këru pale bu rafet fii ci ndakaaru waaye boo demee fa mu dëkk papa ji ba wutul mu ngi ko dëkkal ci néegu ñax lal ba pajaas la boo xam ne ku ci toog ma nga lay jam mbokk yi ëpp naa def waxfid lahuma janaaxa dulli min arrahma na nga wàccee sa bopp toroxlu xoole leen bëtu yërmande foo toll del ñaan ne yow yàlla maa ngi lay ñaan sama ñaari way jur yi li ju dajoon ci man ci coono ni ñu ma yëre ma woon ba ma nekkee xale nekk ndaw yow sama borom maa ngi lay ñaan fii ñu toll ci âge boo xam ne tële nañu seyxuuxa ñëw na kibar ñëw na mënatuñu maa ngi lay ñaan yow yàlla yàlla na nga leen xool bëtu yërmande te ñeewante leen yàlla nañ ko yàlla boole defal mbokk yi xanaa incha allahu danañu ko àggale ci émission bii di ñëw yàlla nañ yàlla defal tawfiq yàlla nañ yàlla musal min uquqil walidayni yàlla nañ yàlla musal min jamiil kabairi hada wa billahi tawfiq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي